galasi galasi saar benn wàll ci lindiin di bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa galasi man pool ndawul yeesu kirist nit faluma ko te jaariwul it ci nit mu ngi jaari ci yeesu kirist ak yàlla baay bi ko dekkal man ak mbokk yi ànd ak man yépp nu ngi leen di bind yéen mboolooy ñi gëm te dëkk ci diiwaanu galise ne yiw ak jàmm féete ak yéen jóge ci yàlla sunu baay ak Yeesu Kirist borom bi moom mi joxe bakkanam ngir dindi sunuy bàkkaar te musal nu ci àddina su bon si nu nekk dëppook coobareek yàlla sunu baay bi yelloo ndam ba faw amiin man de jaaxle naa yàlla woo na leen ci boppam jaarale ko ci yiw wi nu kirist defal waaye yéen a ngi koy gaawantoo bàyyi ngir topp beneen xabaar fekk du xabaar bu baax bi dafa am rekk ci seen biir ay nit ñiy nëxal xel yi te bëgg dandal xabaar bu baax bu kirist waaye su fekkee kenn ci nun ñëw walla malaaka sax mu jóge asamaan di yégle beneen xabaar bu méngowul ak bi ñu leen yégal kooku yàlla na alku wax nanu ko maa ngi koy waxaat bu leen kenn yégale beneen xabaar bu dul bi ngeen nangu kooku yàlla na alku ndax kon nit laay wut a gëmloo am damay fexe yey yàlla mbaa damay wut a neex nit ñi su ma doon wut neex nit ñi ba tey kon duma nekkati jaamu kirist mbokk yi maa ngi leen di xamal ne xabaar bu baax bi ma yégle jógewul ci nit jëlewuma ko ci nit te kenn jàngaluma ko waaye yéesu krist moo ma ko woon dégg ngeen ni ma doon jëfee bi ma nekkee ci diine yawut yi di fitnaal bu metti mbooloom yàlla di ko jéem a tas bokkoon naa ci ñi gën a farlu ci diine yawut yi te sawar it ci sarti yoon yi fi samay maam bàyyi baraw sama maas gi ma bokkal askan waaye yàlla mi ma tànn lu jiitu sama juddu te woo ma ci boppam ci kaw yiwam bi mu ko soobee xamal na ma kan mooy doomam ngir ma yégal ñi dul yawut xabaar bu baax bi ci mbirum kirist booba nag diisewuma ci ak kenn démuma sax Yerusalem seeti ñi ma jëkk a nekk ay ndawi Kirist waaye réewi araab yi laa dem te gannaaw loolu ma dellusiwaat Damas ba ñu ci tegee ñetti at ma soog a dem Yerusalem ngir xamante ak Safaas dal fa moom lu mat ñaari ayubés waaye gisuma keneen ci ndaw yi ku dul saak doomu ndeyu borom bi li ma leen di bind nag yàlla may seede ci ne du ay fen bi loolu weyee dem naa réewu siri ak réewu silisi waaye ba tey mbooloom ñi gëm kirist ci diiwaanu de xamuñu ma woon dañoon déggoon ñu naan rekk ne ki ñu daan fitnaal bu jëkk te daan jéem a far yoonu ngëm wi léegi mi ngi koy yégle te sant yàlla ci man